jour, je serai dernier de la classe. Tout à fait. Merci beaucoup, merci beaucoup à tous ces internautes. Ils sont déjà nombreux à suivre, liker, à partager euh, pour permettre ñi nga xamné ne jote euh, si euh, cloche de notification bi ñu mëna a teewee waxtaan bi waxtaan bi nga xamné dañ koy ak à chaque fois Maintenant, nous non wër internaute parce qu'il avait def il avait fait une suggestion bu am solo néna ñu wa ñu dem li nga des débats liés à l'économie parce que politique bi mom on se répète de trop et c'est important ne fu toll ni mo après euh, les législatives euh, beneen euh, phase war nañ ko ubbi ci li nga xamné mo nek la politique sénégalaise na ñun ñi nga xamné ño nek ci média yi merci pour contribution boobu dinañ ci baye xel inshallah allahu rabbi ñu ñëw ba tey si li nga xamné mo nek le témoin le témoin ñëw na ba si li nga xamné mo nek législative du 17 novembre le PASTEF écrase la concurrence à Dakar une suprématie à 22 222 331 voix contre 92 435 voix pour euh, Sam Sakadou, 9.288 pour euh, Takou Walou, à Basfal, sur le chemin de l'hôtel de ville de Dakar, Mère Moussa euh, dévastée par le missile patriote Moustapha Moumène mel comme ba élection et même sa voix yi le PASTEF Mustafa, si vraiment si li nga les discours entre autres selon vous lan moo justifier le fait que euh, TACO ou euh, sa nous ñu am li nga défaite énorme devant Pasteur. parce que l'écart est énorme quand mm. même 222 231 euh, voix contre 92 435 voix de de mm. qu'est-ce qui s'est passé parce que nous, sommes, nañ Khalifa Sall am ben am solo Dakar Barthélémy Diaz quoi qu'on puisse dire aussi amna fi am solo qu'est-ce qui s'est passé ba ñoom mënuñoo sax xawa a li nga xamné mo nek Pastef lors de ces élections législatives. am nañ ben ancrage mais doyul. Hmm. am nañ ben ancrage mais Pastef de leen fi ëpp doolé li tax Pastef leen ëpp ëpp leen fi doolé moy lolu commencé wu ren na depuis élection locales yi nga xamné mo fal Barthélémy Diaz. Hmm. c'est-à-dire élection yooyu bu fekkonte ne tey ji Ousmane Sonko moo dem xëccoo ji maire bi Ousmane Sonko gagné maire bi. Hmm. te am na ñu ko ko doon wax c'est-à-dire mu dem jëli ji mairie bu Dakar bu fekkoon Ousmane Sonko moo dem heure bi moom mooy nekk maire bu Dakar. Mhm. bon peut-être avant avant avant Diomaye di fallu ba ko premier ministre. Mhm. kon dafay wane ne ñi nga xamante ne ñoo nekk Dakar yi xam nga Dakar dafay jafe. Mhm. nit wax ne par exemple ñi fi nekk ñëpp samay samay samay militant lañ ak na man je dis que militant Dakar yi bëriwuñu. c'est vrai. électeurs yi ñoo ëpp téeméeri junni yoon. parce que ñi dëkk Dakar bokkul ak yenn yenn régions yeeg yooyu non non non nit ñi ñiy voté ñi ngi seen kër yi toog jàpp seen jàmbur doo leen gis ci meeting doo leen gis ñu bind ci ci réseaux sociaux doo leen gis tax ñu def statut mm-hmm. ñooñu ñooy voté ñooñu ñooy dem ci urne ba bàcc li ñuy bàcc génnaat dem ñibbi te ñooñu ñi ëpp ci ñoom euh, dañoo épouser li nga xam ne mooy philosophie Pastef mm-hmm. loolu mënu ci dara. donc ce vent de changement ne Dakar épargné wuñ ko aussi. non le vent de changement depuis que dañoo yeggali rek. ok depuis euh, élection locale yi la ba tey. Mm. élection locale ba tey xam élection locale ba tey Dakar fii fa Pastef la. Mm. seulement nag taxaw dafa duggoon ci oto boo xam ne Pastef moo koy dawal. Mm auto bi neex loolu mu yàgg mu foog ni moom auto bi parce que Pastef daa wàcc bàyyi ko ci biir auto bi mais ba mu demee ba ba ba yegg xam na ne auto bi auto Pastef la doon dawee maanaam doole Pastef la doon xeexee moo waral nga gis écart yu métti yi normalement foo ne sa fief nga buñ la fay dóor war nga dégg ñoon écart bi kat 1000 voix 500 voix 2000 voix waaw waaye ñii bu ñu amee 200 et quelques yow nga am 90 92 12000 donc ça veut dire ce que ça veut dire loolu dafay wane ne tey ji Dakar moom wax dëgg yàlla mbiri Pastef la te dafa am leneen loo xam te nit ñi dañ ko dañ ko doon lijjantiwaale ci biir élection yi mm. mooy ils n'ont pas aimé comportement de Barthélémy Diaz parce que ñëpp dañoo jàpp ne Barthélémy Diaz Dakar mm. la jox dara nga dem toog ba normal ba ñëpp xam la nga nga wëlbati ko na ko du yow doyatul nga wërëb di ko attaqué di xeex ak moom te ma bokk moo taxoon ma teg la fii mm-hmm. waaw kooku tey jii boo wëlbatikuwaat di ma parce que saa moo tax ñu xam ma waaw léegi ñu dem ba benn moment mën ma ñëw di attaquer ça léegi ki tax ki saa tax eh, mu mu votel ma tey jii mais kooku bu ba demee benn moment dootu dootuma faaleeti parce que danaan ah Moustapha mi kan man xàmmeetuma ko parce que man ma koy votel yàlla ak saawa tax léegi dem na mel nii ak saa man kon sama diggante moom jeex na donc loolu mooy problème bi nga xamante ne moo ko moo ko moo ko moo ko gën a sonal mais bu doon dañuy compter kese xoola euh, le cas Bamba Fall mm. Bamba Fall boobu moo ko yóbbu Bamba nekk benn maire ñëpp gi mais ba mu demee ba gañe Euh, vent Pastef bi Dakar Bamba doole mi ngi fi mm. ñu dem élection locale mu ñu législative mu ak Macky Sall parce que trois députés c'est vraiment très peu pour euh, leur euh, intercoalition. non mais xam nga lu mi lu le chiffre allez-y xam nga PUR. PUR bañu démé ñom législative en 2017 trois députés lañ mm. ñu dem am 11 députés. Mm tey jii bi ñu demee ak Barthélemy Dias kese benn député lañu am est ce que yaa comprendre niñ ñu évolué ñom kessé dañu dem am 3 jóge fi and ak passif am 11 waccat bi ci suuf dem ñom kessé am benn député nga jël coalition euh, wàllu bi wa kër wa kër wa kër waa kër Abdoulaye Wade bi défé defee intercoalition euh, takku wàllu 24 députés lañ amoon assemblée nationale xawma 25 députés. Mm. Ah, waaw. Euh, ah, waaw 25 25 députés lañ amoon 25 amoon. 26 cinq waaw bañ bañ àndee ak bañ àndee ak Pastef def intercoalition takku wàllu xoolal nombre de députés ñu amoon tey xam nga ñaari député lañ am ñaari député lañ am ci liste takku wàllu bi ñaar lañ fa am ci liste mm, national bi. Mm, xoolal ni ñu jógee noonu cinq ba dale si ñaari député nga dem jëli ji waa taxaw tey ji 13 députés lañ amoon bee passé bañ demee yeewu askan bi te taxaw ñaar député la am. mujj nañu am 14 sax. que dafa amoon mu ñëw voilà. mujj dese 23. ñoom ñoom ñoom ñoom ñu am mm. ñoom ñu amoon 14 jamono yi ñuy ànd ak Ousmane Sonko tey ñaar député lañ am benn te Barthélémy Dias kott mooy dugg assemblée nationale. kon yaa ngi comprendre que ne kon ndekete d'ici 5 il y a ans ci ginnaaw wala il y a 5 ans ci ginnaaw laay wax ndekete doo liggéey Pastef moo ko yoroon. Mm. nit ñi dañoo la ngaamoon ci ginnaaw di ko xeexee kese. loolu la loolu la jeu bi loolu la jeu bi kese kese kese kese kese ndekete doole bi ñu doon xeexee ak coow li lépp lépp Pastef kese moo ko xeexee te ñoom dañoo wàcc au même moment Pastef ba nga xamante ne mi ngi amoon 24 députés su ma juumul mm. jamono ji mi ngi am 132 députés. Mm. ba mu doon ànd ak ñoom jamono jëlee mi ngi amoon 24 tey mu am 132 députés waaye lu mu wane kon ñoom wàcc nañ moom mu yéeg. dàmbooj daf ko daan wax mu ne wax ji bu ko mosee wax mu metti waa waa ñu nekk yeewu askan yëpp mu ne yeewu askan wi Pastef la yeewu askan yi Pastef la yeneen parti yëpp dañuy langaamu di te loolu moo te loolu bi Pastef génnee dem rek dafa feeñ kon loolu moo moo nekk di continuer jamono ji euh, mu nekk benn force boo xamante ne il suffit que ñu ne liste passif laa bokk rek soxlawuñ sax xam kan mooy nekk ci liste ba. Mm. liste passif la ñu votel la. donc loolu moo nekk di wéy ba tey et je pense que bu ñu continuer si dynamique bi ñu nekk gën a góorgóorlu mën nañ gën a am euh, doole gu mën a bëri tout dépend nag seen doxalin ak seen taxawaay ci réew mi. tout à fait euh, ça la bataille de Dakar en juillet au niveau de Dakar c'était vraiment une réalité parce que man de